asalaamaaleykum waa Sénégal maa leen di nuyu ku ci ne sa tur sant waa tey nag dama am lu ma metti lu may jooy di ko gaas ci Sénégal euh, rawatina ci hôpitaux yi hôpital yëpp ci hôpital yi waaw parce que le 27 bi passé le 27 octobre bi passé dimanche. Eh, suma seex dafa def accident croisement keur massar ci njaga njaay ben camion eh, militaire mo len bëkk mom yalla def mu jëlé ci fracture ñaari tanki waaw bu tam metti sax boole ci tanki xoté ko kon lolu metti na ambulance nak biñ ñëwé eh. ñu jël corps bi daanaka ay 18 heures lañ ñu yàpp bi ci oto bi jubali hôpital yi biñ demee ci CTO lañ njëkkee biñ demee CTO waa CTO xool ko ñu ni jël ay carton bandu defar tànk yi ko yabal leen principal ñu dem principal biñ demee principal ñu ñëw ñu né amuñu place ñu né amuñu place biñ na amuñu place ñu nek fa jappal bàyyil médecin bi ki ñu wax ni mo monté ci guddigi mi ngi urgence ñu né ñu dañu dugg urgence ñu dugg urgence waji nañu xaaral chef bi ñëw bu chef bi waxee ñu jël ko rek ñu jël ko suma benn mag woote foofu bi sama mag bi di woote nag nanguwuñ ko jël bi mu wootee laajte benn médecin mu ne ñu laajte leen diw ñu ñëw laajte xaw ma nag jóob daal ñu ne ñu nekku fi mu woowaat mu woowaat ñu téléphone ñu ne ko ah kooku nee nañ nekku fi moom tamit xaw ma kan la woon noonu ba ñu jox ko tur mu woowaat ñu jox ñu tur bi ñu ñëwee laajte tur boobu waaj nañu maay nii ñu ne ko diw moo ñu boole yow rakkam moo def sag bi pour ngeen jël waaj nañu waa chef bi moomu ne moom su waxee rek ñu jël ko ñëw ni chef yaa diw mu ni waa maay diw ñu ne ko waa ñun de dañu indi fii benn kii bu def sag mu ne ñu waaw mais place amu sama yaa naan na ko ah señ bi teega maa dimbali ma jël ko sama dom la sonu er ya na mu na ko mère fi ñu fi ñew ñepp a sama yaa na ko waa xam naa loolu waaye may dimbal rek ké dafa sonu kay nga xol ko dimbal ma rek sarax ma ngir yalla la wa a sama yaay katama ko japp tanki ma tamit sama xol jeexna té te suma yaay mag la yeeram naa ko mais tamit yërëm naa sama seex bi toog ci ambulance bi depuis 18h. Bon, 21h 20h 21h 22h presque médecin xoolu ko laal Nous avons waaji ne du ko jël ma nous avons waa mais grand mën naa laa ñaar benn affaire fekk booba man li ma ko bëggoon wax mooy que ni xoolal noo ko dimbalee pour douleur bi mën a wàññeeku waaji na ma man daal je n'ai rien à ko sëñ bi looy man ma pare mu ne ko waa mais nga déglu ma nga déglu ma tuuti xamoo lu ma lay doyee de xamoo lu ma la bëgg wax mu ne man daal wax naa li ma lay wax wax naa li ma la xaw ma lu may wax ak yow ne ko nag mais sëñ bi yow da nga war a xam ne yow fii tegoo fi sa bopp yow fii dañ la fi teg pour ngay faj doomu aadama yi chaque fin mois dañ lay fay xaalis bu weex tal may may mayewoo li ngay faj du gratuit li ngay liggéey fii du gratuit kii da ko war a faj yow da nga war a wax ak man par force mu ne ma na du ma wax ak yow aw ma lu may wax ak yow man nar xew ak moom foofu su ma yaay téye woo suma copain yi ma àndaloon ñu jàpp ma génnee ma ci biti ma génn toog ñu defal ma ma ñëw xool solution met sapeur bi ci boppam moo ñu ne da ngeen di jéem a xool benn clinique privée yi ngeen ñu yóbbu ko fa sama benn copain taal otoom ñu yéeg ci dem benn clinique privée bu nekk foofu biir Dakar xaw ma clinique mat leen la tur bi laa jàppul ñu ne ñu bu ngeen amee un million daal ñu laal suma copain bi ne ma waaw mais mën naa teg deux cent ci taabal ji waa ji nañu non il faut un million te wax dëgg fa yàlla man mii seexam man yor ma un million suma benn rakk yorul un million waaw gannaaw yàlla suñu liggéey ga yaakaaruñ keneen ko dul yàlla waaw ci loolu ñu dellusiwaat principal ba léegi médecin yi nanguñ ko laal ñu ne ñu dem leen dante ñu dem dante waa dante mi ñoom seen urgence dañ koy defaraat dafa am ay paan dañuy def ay réglage dañuy defaraat yooyu daal di jël benn pikiir morphine xawma daal lañ ko defal ci butéel bàyyiwaat ñu ñu ne ñu dem leen Fann ñu dem Fann tamit la Fann tamit euh, Fann nañu la même chose par la suite lañ dem fële gendarmerie xaw ma fan daal ñu yabal ñu kii non police centrale lañ dem ñu yabal ñu benn gendarmerie bu nekk foofu ci ginnaaw xaw ma conk la xaw biñ demee waaj ñu fekk kenn conk benn waay dong lañ fekk. waa ji nañu woote ñu ne ñu léegi dangeen dem bu Kër Massar bi ñu retourné di dem Kër masaar ci autoroute à bi lañ jaar ak ambulance bi foofu daal la sama seex wàccee liggéey ci la gaañu ci autoroute à bi la gaañoo sappoor yi nag def nañ seen kemtalaay kattan pour sauver ko mais yàlla nanguwul yàlla nanguwul mu nekk nag loo nga xamante ni metti na ma trop metti na ma trop parce que dama ne woon damay def plainte dama ne woon damay def plainte waaw dama ni damay plainte surtout principal parce que médecin boobu médecin boobu li muy jaay nekkul quoi nekkul amul moom du boppam moo ko fi du nguuraam moo ko fi teg ndax am na ñu ko ay diplôme fii ci senegal te liggéeyuñ kon mom, suñ ko jëlé muy liggéey dafa wara respecté doomu adama yi wa dafa wara respecté doomu adama yi parce que koku respecté wul doomu adama koku warul doon médecin waruñu ko jël ci ben hôpital ndax ku nangul fajj malade Koku yow waruñu la jël ngay liggéey ndax do nit ndax nit du sétan doom moromu doomu arama moromu julitam muy muy faatu non. chrétien yi sax dañuy dimbalante Tuba bi sax gëmuñu yalla gëmuñu yoon mais dañuy dimbalante té dañoo fonk doomu adama mais kon pourquoi pas Sénégal ni ñom respecté wuñ doom adam lan mo waral lolu lan mo waral lolu bu fekkee suñu gouvernement yi ñoom ay yaafus la nan ñu ko wax nan ñu ko wax Macky bu fekkee rew bi ni lay doxé mu wax nu bu fekkee askan wi ñoko fi taxaw tok askan wi lay xéxal kon na wax ci li médecin yi ni nan baña fajj doom adam ay yi nañ ci wax bu fekkee mom le père de de la nation bu fekkee deug la na ci wax man man votélu lu Macky Sall mais tamit munu moko bañ suma président la mais dama ne bu fekkee mom réewam mi lay doxé mom na na na nañu abal bu mu doon président parce que ay médecin nga xam kenn nangu ci def sa liguey amul fenn Sénégal rek la am dañ koy wax dé li dafa neexul dafa metti bu doon doomu Macky Sall la dal wala jarbaatam dañ koy fajj dañ koy fajj Sénégal nañ xoolaat li ñuy def bu baax nañ ko xoolaat man nag dinaa def sama plainte dinaa def sama plainte waaw lu ma yoon may ma jël bu fekkee sax Sénégal am na yoon waaw waaw dinaa def sama plainte parce que première fautif militaire yi waruñoo mbëkk njaga njaay bu doy noonu mu am ay blessé ay mort ñu bàyyi leen noonu autant que pourquoi pas ñoom boolewuñ leen ak ku ci ne ñu boole la ak benn militaire mu yóbbu la benn hôpital bu demee ñu mën laa jël par force loolu tamit lu jar a wax la loolu lu jar a wax la du hôpitaux yi rek mais ñi def soog bi seen bopp ñoom seen bopp am nañ ci part responsabilité am nañ ci part de responsabilité waaw parce que li neexul un jeune ba nga xamante ni mi ngi gagné life am honnêtement sàccul agressé wul waaw day xëy dem daani dooleem di ci dimbali yaayam di ci dimbali ay rakkam ak i njabootam. du xey un bon jour def soc ben hôpital nangou ko jël mais lan la wala bu fekke da ñu bëgg da ñu ko jappé bëgg def sacrifice non bu boba dama leen tam ay demu waaw dama leen tam demu waaw té limay wax man ragal moko té te du ma ci tit waaw gannaaw yalla yaakaar ma kenn ku du sëriñ touba waaw limay wax ni nak daf ma metti motax makoy wax dama koy kaas daf ma metti dama koy wax té kum dalon tamit dang ko dalay metti par que suma seex la 39 ans maa ngi moom ñu koy nekk ci live bi lu ne ma koy def mu ma ci génnee lu ne mu koy def ma ko ciy génnee kon tey bu xëyee tey def benn choc hôpital benn hôpital nangu ko jël ça mal daf may metti daf may metti képp ku seetaan ojo bii nag wala nga dégg ko vidéo bi nga seetaan ko bu fekkee yaakaar nga ni man nekkuma ci dëgg wax ma bu fekkee maa nekk ci dëgg tamit nga wax ma parce que lii neexul dafa metti dafa metti xale bu ndaw ñu sacrifier sa life ah sàgganee la ba dee ci koo xamante ni fi mu tëdd mi ngi bëgg a dee ak mettit mais terewul mi ngi naan mi ngi dëgër mi ngi naan médecin yi dimbal leen ma li laa war a suul ngeen takk su may tànk mettit bi kon kooku buñ ko dimbali woon amaana sax mu mu mu rëcc même bu dee bu dee dundaat deux jours sax mu dundaat deux jours ñu xam ne hôpitaux yi def nañ seen kéemtalaay kàttan mais kenn nangu ko ci laal kenn kenn kenn nangu ko ci laal mais dafa metti c'est vraiment honteux barke sëñ Bamba metti na metti na ba ci kanam yàlla metti na te lii dañ ci war a jóg lii dañ ci war a jóg Sénégal dañ ci war a jóg lii dañ ko war a xeex nit ñi médecins yi dañu war a xam teguñu fi seen bopp teguñu fi seen bopp te du hôpital yu ndaw rek de hôpital yëpp la hôpital yëpp la waaw mus naa for benn taalibe bu def sot ci ci tali bi ma yóbbu ko Dominique ba ñu demee Dominique dama ñëw ñu ne ma waa Dominique dañoo grève parce que boobu man yor ma xaalis bu pour faj taalibe bi mais li may wax ni am naa si témoin am na benn paa boo xamante ni ñoo àndoon ñoo bokk fi ñuy liggéeyee marché poisson ñoo àndoon taalibe boobu bi ma fëggee bureau bi. ñu ngi ci biir di waxtaan du ma fëggee faale wuñ ma ma fëgg correctement faale wuñ ma mais bi ma xàccee ku dóor ci bunt bi dañoo jóg ibbu bunt bi ma mais man leen yéen mais kii yéen lan la mais yéen yaakaar yéen a fi teg seen bopp mais yéen teguleen fi seen bopp ah waaw ñu ne ma lan la man leen taalibe bi dafa def sob ma indi ko fii ñu indi ko fii ñu ne ma naa ko indi fii pour euh, affaire ndimbal ndimbal faj ko mën ko faj gratuit wadina na ma noo dañoo grève ma ne ko day na kon lu ngeen def fi lu ngeen di fi di waxtaan ñibi leen seen kër yi wala ngeen génn ci biti yor ay drapeau ay ay ki eh, bande rouge waji nak fof sama xol jeex mujj gi ma génn ak talbe bi lam sam pos fa talbe mais senegal li fi am amul fenn fi li senegal fi la am senegal fi la am te lu ñu war kaas la te nekul luma dund ben yon ñaar yon dama ko dund dund ko dund ko ci hôpital yi amna ci ko xamanteni da doon xex ak sama benn copain ñu door ko copain bi door ko mu toj ñu yob ko Dominique ba ma Dominique dama jëndé ticket mais passement yi Dominique ñoko wara def mais femme bi daf ma doon jëndulo ay garab yo nga xamanteni ni nan ma ay 3000 lay jarabi bima bi ci pharmacie bi ay 1000 francs lañ may wax la garab gi jaar barki sayidina Mouhamed té limay wax ragal moko hôpital Dominique ci bopam la la wax. sagam hôpital Dominique mooy def loolu waxantuma la ay principal non hôpital yi li fa am amul fenn li fa am amul fenn te lii dañ ci war a jóg gouvernement bi dafa te war a jóg jël ci ay matuwaay bu fekkee moom nee na askan bi moo ko fi tax a taxaw moo ko tax a toog fii dafa war a dimbale askan bi ko lii dañ ci war a jóg buñ ko bàyyee ni senegal du dem ndaw yeeg ñëpp àndandoo dee ku amul xaalis donc da ngay dee ku am xaalis yu dund kon dañ ci war a jóg lii du yoon c'est maa ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp ku gis vidéo bi nga jottali ko sa moroom képp ku ko jottali sa moroom yàlla na la yàlla Cheikh Ahmad Bamba teral ci àdduna ak alaaxira barki Serigne Touba.